bu baax wér gu yaram bu baax d' abord man maa ngi tudd Mbène Faye coach ASC Gandoul Sipar. ASC Gandoul Sipar ñoo tey joué quart de finale bu am solo donc euh, football ko joué ko gagné ko donc euh, match bi en général nan nga ko gisee. avant tout d' abord ñun dañ mettre benn aspect rek boo xam te rendre hommage suñu coéquipier bi. boo xam te ne ci ñun la bokkoon ah, mais yàlla moo def ñu gën moom moom la ñu daal di commencé soo gisee ci bi aussi loolu la représenté kon côté boobu noonu ñu ngi ko daal di commencé moom Aliou Faye ñu ko bu baax a baax parce que moom il était l'un parmi nous xam nga ñu ko ñaan daal yàlla yàlla yàlla ko yàlla mais bon côté match bi moom match bi ñun ñoo ko ñoo ko gisandoo match bi xam na match bi ñu nam far a demee parce que ñun xam nañ carrément adversaire bi xam nañ carrément adversaire bi jàngat nañ ko xam nañ ko si li mu mënee dans ce cas moo tax tey gi soo gisee match ñoom pratiquement créé ñu benn occasion amuñu benn occasion parce que loolu noonu yëpp liggéey la rek liggéey boo xamante ne peut-être dañ doon football ak ñoom benn faux rythme boo xamante ne ñoom mënuñu comprendre saa ñu yoree bal bi on postule en 4-3-3 mais saa ñu saa ñu waree défendre on revient à 4-4-2. Sur, sur, défense, on avait une défense solide. On avait une défense solide parce que nous, on, avait mis des deux récupérateurs au niveau du milieu de terrain. boo xamante ne bal avant muy àgg ci défense bi. ça sera très difficile. effectivement loolu na fa demee. parce que sorti bal yooyu gis a xaj pour nous mën naa la wax ne orzo la on avait bien bien aligné. que gisee système bi. c'était juste pour jouer comme faux rythme boo ne. mais football football bi pour aller tu ci flanc flanc bi nga ko sànni. waaw ci flanc bi nga ko sànni moo tax man la damay ci bi en 5 cinq en 4 quatre de terrain. pour blender digg bi mais à chaque fois ça ñoree bal rek. dañuy yaatal automatiquement pour gars mu mun pour militaire bi aussi mun a yaatal bal bi vite fait ñu ñu ñu surprendre adversaire effectivement loolu loolu la ñu andi woon tey parce que effectivement xam na ni saa yoo gagné milieu terrain bi rek pratiquement ñu mën a téye li très bien donc ASC Gandoul xam naa mu ngi préparé demi finale bi. waaw dès maintenant dès maintenant en sortie de l'estade ñu ngi koy mhm. jarul parce que comme tu mu mhm. gagner ou perdre mhm, kon nous on ñun du ñu kenn trois points ça nous mérite exactement erreur yi nga xamante ne dañ ko doon phase de poule daa mel koy rectifier di non pratiquement erreur yooyu noonu la wax techniquement wala physiquement

et le physique aussi. très bien je énergie physique may parce que je suis sama sécurité, amul de de même si ba da retourner vite fait. kon donc moom affaire bi moom mu ngi nii. aca kon ñu ngi rek ah, en tout cas ñu ngi lay aussi bu baax a baax bi à chaque di ñu di mettre affaire mhm. dans tout le monde mhm, ñëpp di gis affaire mhm. loolu ñu ci ñu ngi la féliciter bu baax a baax avant tout d'abord bàyyi la may sama ko coéquipier yi parce que moom hommage bi ni mom def nañ ci ay jéego yu rëy rëy macha allah kooku noonu suñu xarit la suñu morom la mhm. ño fondo ño def il était joueur était notre gardien notre premier gardien motax baye bàyyi sa mu mhm. sànni ci quelques cadeaux rek mhm. côté hommage bi affaire yoy non voilà Pape Babacar Diouf Aïssé Aïssé Gandou euh, de Sipan ñepp a xam nañ ne yaa ma xam mais jaruma jaruma may def présentation parce que dëkk bi xam nañ ma xam nañ ma maay kon kon donc maa ngi nuyoo yéen ñëpp di la ziar yow mii sa liggéey macha allah di la ñaanal jàmm bu baax gën a yokk wërsëg gi gën a ubbeeku mhm. bu baax a baax mhm. lii nag defuñ ko dara pour kii suñu rakk le mhm. sama nit la woon daan am une semaine te dégg déggante wuñ kon donc yàlla jëlee ko fi ñun ñëpp dañuy dem dé dékkuñu fi kon donc lii geste bi man maa ko génne kiyee ko gars yi gars yi def ci seen xaalis def ci seen doole. waaw di leen remercier encore in fois su leen neexoon su leen neexoon ñom ñuy ñu yor seen xaaliss téé ko seen poos parce que li li dafa rafet li du da lii du dara lii yokk ñaan la rek pour ñok yo ñaan bu baaxa baax wa fu mu jógee euh, fu mu fu muy dem gën fu mu joggé bu baax na ko yàlla xare àjjana bu baaxa baax ba baax c'est source mhm. de notre motivation quand même waaw source de notre motivation gardien gardien bu amone jom la gardien bu ko kenn bëggul woon bëggul woon encaissé euh, en 2000 yakana 2019 2016 pour mën fi bu ñu jël coupe bi encaissé wul 2 euh, ans encaissé wul donc jambar jambar la mhm. vraiment ñu koy ñaan yalla bu baax yal na ko yàlla xare àjjana amiin amiin bu baax yal na ko yàlla xare àjjana mm-hmm. heure bu suuf ci kawam donc mu ngi noonu donc ñu fàttali leen aussi moom moo taxoon donc ñu reporté match bi waaw moom moo taxoon ñu reporté match bi waaw exactement et encore une fois ñu ngi remercier Diop mm-hmm. euh, ASC Bari Jàmm mm-hmm. parce que su ko neexoon mu ne match bi duñ ko duñ ko reporté parce que amoon na déclaration de quatre jours de cinq jours bi it mu comprendre xam ne lii dafa metti suñu morom la suñu lépp la mu ñëw mu ànd ak ñun ñu reporté mu reporté match bi kon ñu koy remercier bu baax. docteur pharmacie ñu ngi koy remercier bu baax.